nga xamee choisir naa 25 joueurs 25 joueurs yoo xam ne ñoom ñoo war a euh, préparer ñaari match match Madagascar bi gaa amatul enjeu boo xam ne enjeu bu mag la waaye comme ni ngeen ko xamee équipe nationale match yu yëpp yoo am importance la dañuy war a jouer match yooyu pour pour gagner leen vingt cinq jours yu ma jël noonu bon bu ñu xoolee bu ñu amee jàngat ci liste bi mooy que liste bi daanaka mën naa wax ni que changé wul changé bu rëy boobu mais comme ni ko waxee rek ñun suñu philosophie

ni que ñaari match yi lu am solo la woon tamit ñu ñu woo ko euh, Santy Ngom boo xa xale boo xam ne tamit ñëwoon na fi bokkoon na ci équipe bii ci groupe boo xam ne ñoo joué woon mois de mars contre Bosnie ak contre euh, Ouzbékistan foog naa euh, ñu bëri nag di ko doon di ko doon laajte di namoon ko bëgg ko gis mais yàlla def nañ defoon ni que amul woon temps de jeu ak ak équipe am fële Nantes changé de club légui mi ngi Nancy ñu fay def vraiment lu lu baax la kon euh, su yaakaar mo doon ñu ñu bokku ko mu ñëw. Crépin Diatta tamit xale bo xamné ne fii judo juddoo yaroo fii euh, ci petite catégorie yi def euh, je crois coupe du monde U20 euh di jouer Bruges fële ci ci Belgique.

foofu tamit jël na fa benn xale boo xam ne mooy seen seen góor bi mu tudd Diar Ndiaye mu nekk xale bu xarañ tamit pour que justement mu mu ñëw intégré équipe bi waaw loolu daal ci ci loolu ne